ñuy dund ces violentes et meurtrières manifestation euh, qui ont coûté la vie à plus de vingt Euh, sénégalais euh, notamment euh, de jeunes sénégalais ñu ñàkk seen bakkan ci manifestation yooyu le ñi nga xam ne nag ñoom ñooy waa état du Sénégal par la voix du ministre de l'intérieur génn nañu communiqué la police nationale a même fait une communication ngir expliquer violence yi jàpp nañu ne am na ñuy manifesté waaye nag am na ay samba boy yu ci laxasu te it ñàkkul sax mu am des intrusions euh, étrangères yoo xam ne nag euh, seen objectif moom mooy semer le chaos mu doon une communication boo xam ne nag ñoom ñu ngi wax ak sénégalais yi waaye tamit euh, ñu ngi wax ak bitim réew démb ñi nga xam ne ñoom ñooy waa opposition bi nag dañoo lancé une journée de manifestation ce lundi li nga xam ne moom mooy activité économique bi dafa paralysé ba tey malgré un retour au calme malgré l' apaisement ñi nga xam ne ñoom ñooy école ji banques yi université yi bref c'est tout le système économique euh, moom moo arrêté Sénégal nag euh, communauté internationale bi teg ko gët loolu euh, ñi nga xam ne nag ñoom ñooy waa acteur opposition bi ñoom ñu ngi wéy di wéyal seen i ndaje fas yéene ñu yéene organiser ay manifestations les 9 et 10 juin ñoom nag ñu ci bari ci ñoom dañu naan nañu continuer li nga xam ne moom mooy la résistance mais il y a am na ñoo xam ne nag situation élection bii di am euh, tàmbali na di leen euh, tiital euh, ba ñuy ñaan ñaari parti yi ñu waxtaan ñaari partie yooyu nag c'est le camp du pouvoir et le camp de Ousmane Sonko waxtaan boobu sax association société civile bi ñoom ànd nañu ci jàpp nañu ne ñaari camp yi foog ñu waxtaan pour que Sénégal mën a génn ci guuta bi mu nekk dinañuy waxtaane tamit mbiru dialogue politique moom Bougane bokk na ci ñi nga xam ne dañoo boycotté dialogue bi daañu waxtaane les candidatures parce que tey euh, bari na ci langue politique bi ñoo xam ne euh, seen dem wóorul wala seen dem ci élection boobu leexagul euh, ki nga xam ne nag moo nekk ca bopp ba mu ni président de la république Macky sàll mu ñuy prêter la volonté de vouloir faire un troisième euh, mandat euh, loolu nag ñu inscrire ko ci li nga xam ne moom mooy l'agenda du dialogue politique pendant ce temps au Sénégal daal l'économie dafa dafa dafa dafa dafa taggatémbe tous les jours nit ñi ñu ngi ñaxtu ndax internet bi nga xam ne dañu ko coupé ci xayma bi nga xam ne def nañu ko opérateurs yi rien que les opérateurs dañuy perte cinq milliards de francs fas par jour mu doonoon économie boo xam ne dañ ko digitaliser euh, gis ngeen ko même médias yi suñu euh, suñuy possibilité d'action euh, dafa wàññeeku bu baax a baax am na ñoo xam ne seen économie yëpp ci système internet boobu la dépendre aujourd'hui beaucoup de Sénégalais tey mu ñu exerce seen activité nu mu leen neexee mu doon une situation inédite Sénégal ñu war a nag situer les responsabilités et dinañu livrer wu à cet exercice là avec le patron euh, du mouvement euh, Sa Bopp euh, qui s'est ainsi très violent euh, qui s'est radicalisé euh, mi nga moom le F24 et il semble ces temps-ci euh, filer le parfait amour avec le leader de Pastef Ousmane ak waa Pastef yëpp euh, après l'épisode de la création de la coalition Yewwi Askan Wi nga xam ne daf ko quitté woon avec fracas ñu nar waaye tamit par les perspectives avec Bougane patron du mouvement euh, Gëm sa bopp Bougane Gueye Dany bonsoir. bonsoir. Euh, dalal euh, jàmm. di la ne massa coono xanaa ñu waxante rek massa parce que sénégalais yëpp ñoo sonn actuellement. Mm-hmm. c'est malheureusement. ma nga may ma rek ma commencer par euh, jaale ñi ñàkk seen bakkan. depuis bientôt deux ans je compte je crois que le décompte macabre bu ñu ko xayma war na toll tollu tey ci fanweeri nit yu ñàkk seen bakkan ci ñaari fan yu mujj diggante jeudi ak vendredi fukki nit ak juróom benn ci li ñu ñu waxandi seen bakkan rot nga xool ñëpp mu nekk ay xale li ci ëpp nekk avenir pour seen njaboot kon jaadu na ñu jaale ko ñu jaale leen seen njaboot yépp jaale leen Sénégal waaye jaale leen ñi nga xam ne dañu yàgg xeex pour démocratie Sénégal jaale ko ñi nga xam ne dañu tuur deret pour Sénégal yegsi fi mu yegsi ci wàllu démocratie mais c'est dommage suñu yalwaan tuuru na suñu yalwaan këpp na parce que bi ñu fi jëlee président Abdoulaye Wade en 2012 dañu amoon yaakaar ñu dig ñu yaakaar ñu am yaakaar yaakaar woowu tey ji ñu soppi ko def ko yo yàqute moo indi lii tey seize personnes seize espoirs en vérité de seen bakkan rot booleeg ñi fi njëkkoon a rot euh, yàlla na ko fi yàlla yemale parce que Sénégal soxlawul loolu waaye nag kenn rek mooy ndeyu mbi gi mooy ki waral mbaboor bi ki waral coow li ba situation bi yëpp am euh, lëjal na Sénégal fitnaal na Sénégal su buuxul ma la makki <laughs> alors nga ne suñu yaakaar yàkkeeku na euh, est-ce qu'il est vraiment vraiment trop tard parce que pendant des années on a joué avec le feu xalaatu mosuñu xalaat ne Sénégal situation yu mel nii mën na fi mën na fi am aujourd'hui on a peur d'aller vers une guerre civile aujourd'hui au Sénégal nit day romb moromam tiire ko ku nekk di armé wu alors que seul l'État doit avoir le monopole de la violence légitime est-ce que une prise de conscience une prise de responsabilité de yéen ñi nga xam ne yéen a sekk géew bi avec en premier ki nga xam ne moom la sénégalais yi dénk seen tey ak seen ëllëg est-ce que mënuñu mënu leen retrouver wu ngeen jéem a penser les blessures et puis jéem a xool nan lañuy defee ba Sénégal relever wu waat parce que tey suñu image dafa yàqu euh, ci scène internationale bi. Eh, benn ndey mbi lii rek la kenn dong la li xew lépp may mun a ci benn responsabilité la nekk ki ñu fal jël suñu lépp jox ko ko. jël doole gi ci réew mi jox ko ko jël alal gi ci réew mi jox ko ko jël kattan gi ci réew mi jox ko ko kooku moo indi tey situation bi ñu nekk kooku moo jàkkaarloog sénégalais yi ne leen je sais me battre qu'il sait se battre moom mën naa xeex président de la république xaaruñu ko ci mu xeex ak askanam président de la république ndey ji seex la war a doon président de la république bàyyi la war a doon say doom dañuy gedd añ nga naxtaan leen woo leen ne leen kaay leen añ ci bool bi président de la république dafa war a nekk au-dessus de bépp contingence malheureusement yàlla nattooñu koo xam ne day mer ba fut day jàkkaarloog nit ñi ñu jox ko suñu réew mu naan bu ngeen bëggee ma delloo leen ko da ngeen ma koy ñaan ci njekk moo tax ci conférence de presse bi tey nee naa ko du njëkk kenn du la ko ñaan. alors c'était un par force la. mais c'était un brin d'humour c'est une erreur de communication mais c'était un brin d'humour aussi. Ah, d'accord c'est une erreur de com président wax loolu. je suis brin d'humour aussi. brin am boobu nangul ma man nit sama brin d'humour <laughs> président non troisième mandat du fi am amul njëkk par force la nangul nga ma sama brin d'humour li am solo may mun a mooy constat bi nga def tey jii nous avons seize morts en deux jours xëy na dinañ ci wax mais li am solo d'abord mooy ma war a interpeller les forces de défense et de sécurité suñu gendarmerie suñu polis ñoom ñoo am mission maintien de l'ordre au Sénégal yow gis nga man gis na keneen gis na ay L200 yu ñu yëpp ay nervi jël ay fetal des armes de guerre ay M16 jox leen ko ñuy wër di tirer ci kaw manifestant yi vous avez des de ce que vous dites. mais les vidéos waaw mais est-ce qu'on ñoom ci seen bopp. est-ce que mën nañu formellement identifier ces gens là xam nga en fait situation bi jaxasoo na trop. ma ne est-ce que mun nañu formellement identifier ces gens là vidéo ñoom bi ñu wane. ki ñu présenté. police ki mu présenté démb ne dañu koy présenté comme force occulte vidéo yëpp wane na ne kooku dafa bokk ci waa police et c'est la réalité mu ngi woon bokk ci wetu waa police. noonu laa ko mën a tuddee kon moo tax ma ne nos force de défense et de sécurité doivent prendre leurs responsabilités et am na loo xam ne may mun a dañu jàkkaarloo nga baal ma ak ay njiit yu ñàkk fayda ci ñi ma ko sañ a wax gis nga bu ñu amoon tarafatal ay ni ci li ñu tuddee force occulte plus force occulte ay nit ñu ñu war a dàq yàq Sénégal ay nit ñu dugg ci Sénégal nee ñooñu ak ay ngànnaay des armes pour déstabiliser ce pays 2021 ba 2023 ñu ñuy wax ay forces occultes te musul lu ñu loo jàpp kenn teg ko ci suñu kanam ni kii ci force occulte yi la bokk lii mooy armes yi ñu jàpp ak ces forces occultes là alors donc on a un problème maintenant ces fortes forces occultes c'est dans l'imaginaire ci géntu Macky Sall la bokk Macky Sall dafa nekk nit koo xam ne dafa nekk ci stratégie tiital sénégalais tiital boobu muy tiital sénégalais yi li mu ci jublu mooy suma maam sa bàjjan sa tànta bi nekk sorokoñ ñooñu ñëw taxaw ne ah réew mi de réew mi jaxasoo na kon nañ fi bàyyi ki fi nekkoon pour mu yore réew mi xamul ne ces jeunes yu génn ci mbedd mi dañu am ay comptes yu ñuy régler avec les tenants du pouvoir avec les politiciens en général ces jeunes qui sont dans la rue dañu sauté ci opportunité may mun a li ngay wax fii yëpp mooy wuy sécurité sécurité bi njëkk mooy démocratie sécurité bi njëkk ci réew mooy liberté démocratie boo ko najee mu noyyi bu noyyewul bakkan noyyee gémmiñ boo fàttee gémmiñam muy utiliser ay loxoom et bu boobaa violence dugg. mais mais violence bi ki indi violence bi du kenn. dafa am ay fait yu am solo yoo xam ne dañ ci war a taxaw may ma mais ci mbiru arme yi ngay wax ci mbiru force occulte yooyu xalaatoo ne tey war nañu def balateer ñu càmbar mbir moom dans la rue des jeunes en colère sont sortis des jeunes qui doutent génne nañu des jeunes frappés par le chomage la précarité génn nañu des jeunes yu ànd ak Pastef ak Ousmane Sonko génn nañu mais mbir mi rax na léegi bu mbir mi raxee xalaatuloo au lieu de dire y a rien su yàqalee sénégalais xalaatu leen ne dañu war a càmbar mbir moomu bu fekkee ne dafa am ñu ñu fi dugal ñu identifier ñi leen fi dugal bu fekkee ne au côté de de la police et de la gendarmerie am na ay force occultes yuy opérer ñu xam ñu ñu jéem a ràññee ñan ñoo leen ci parce que maintien de l'ordre euh, gars yi bu ñuy génn ci garnison armes yi ñuy génnee tout est répertorié les types de balles yi ñuy utiliser tout est répertorié am na type d'arme boo xam ne bu génnee c'est un élément extérieur maintenant ñu war a xam kan moo ko fi dugal au lieu de dire juste que force occulte am na amul. Maïmouna, euh, moi je suis un entrepreneur. je suis toujours sur du factuel man damay bëgg duut baaraam ci mbir mënuñu deux mille vingt et ba fi may wax ak yow ñu ñuy wax force occulte te force occulte yooyu mosuñu ci génne benn nee naa la dañu am euh, ay njiit yoo xam ne seen àdduna yëpp teesante la je te donne un exemple banal Ousmane Sonko lu ñu ko xamal ci ñetti at yi weesu teg nañ ko ci taabal ji ba ci bërki démb passeport am téléphone am euh, permis de port d'arme am yépp teg nañ ko ci taabal bi waaw boo mënee sañ def loolu ci opposant waaw force occulte bu nekk ci biir réew mi nga xam ko xàmme ko di ko wër ñaari at mënoo koo gis mais loolu constat d'échec loolu aveu d'échec la et boo fàttalikoo ci 4 avril bii ñu weesu suñu force de défense et de sécurité yi dañ nekkoon ci benn débat mais bi ñu leen waxee waxu force occulte dañ doon ree mooy 4 avril 2021. 2021 bi ñu leen waxee waxu force occulte dañ doon ree parce que ils savent de manière catégorique que loolu amul nga baal ma c'est des affabulations ces force occultes c'est dans l'imaginaire de Macky Sall nee naa la Macky Sall déroule la stratégie d'apeurer dafay tiital askan wi. Ah, mooy lii. xew tey may mun a L200 yi ñu jël yépp ko ay nervi xam nga fi mu jógee bi may ñëw fii léegi romb naa leen force occulte yoo ràññee force occulte yu ànd ak say ay police ak say gendarme force occulte yuy jël ay fetal di tiire ci ay nit may mun a l'heure et grave très et l'heure grave et bu ñu demee nekk ci réew day ni Sénégal ba ay nit di jël ay civils di leen armé pour ñuy tirer sur la population il y de quoi avoir peur et je dis man bëgg naa ñu wax ma le marché des quarante cinq milliards darmement armement yi ñu jëndoon armes yooyu il faut ñu wax ñu ana arme yi parce que armes yi ñu gis muy circuler c' est des M16 du du du caaxaan. nañu xam nag ne dana am incha allah ay enquête yoo xam ne réew mi bu tegoo ci suñu loxo dana nu ko ubbi ci mbiru nervi yooyu parce que ñiy recruter nervi yi mooy ñi nga xam ne dañu transcender méritocratie mooy ñi nga xam ne dañu dal ci mbir mi mais am na ay fonctionnaires émérite yoo nekk xam ne ñu ngi fii ci gouvernement bi ñooñu kenn du leen dégg. mais mais mais je sais pas je sais pas si tu as vu ça. mais yow sax commencé nañu naan on a arrêté des boys qu'on a interrogé ñu ne boo leen engagé je sais pas si tu as vu ça. j'ai vu titre que yow mais man Bougane ku ma xam-xam na ne duma xeex ragaluma nag waaye bu xeex jotee. non dama koy jox akam ba mu mat sëkk. cest mooy li ma la wax bu xeex jotee. dama koy jox akam ba mu mat sëkk c'est-à-dire message. dama la bëgg wax ne bu ñu yeggoon ci xeex boobu bu ñu yeggoon tey ñu war a xeex ba war a jël ay nit jàkkaarloog ñi bëgg a faat suñu suñuy bakkan non dañuy xeex ak moom ba mu faat ba mu saf sàpp parce que nag dëkku dëkku dëkku dóore. mais fayu moo koy tas. mais parce que yéen yéen a ngi envisager la possibilité ñu xeex. mais bu fekkee ne xeex suñu biir. bu fekkee ne dañu jël ay nit jox leen ay arm jox leen ay oto ñuy wër di dal ci kaw population bi force de défense et de sécurité yi defuñu seen liggéey ah boobu nag bu boobaa nag no man's land bu boobaa loolu bu xam lu waay xam boo te dox ku nekk di nga jël. say préoccupations di nga fexe ba kenn du dal ci sa kaw kooku ku nekk sañ na ko. on n'est plus un état. mais justement. bu boobaa on n'est plus un état. mais moo tax nag Maïmouna moo tax. on n'est plus en république. moo tax ma ne la Maïmouna j'interpelle nos forces de défense et de sécurité moo tax Maïmouna ma ne la Sénégal mérite wul lii ñu koy bëgg a def xaaroon nañ ko ci fépp ba mu des nguur boo xam ne président Macky Sall moo ko yore nee naa la. L200 yi ñu yàpp nervi yi mais ñu ngi fii ñu ngi koy gis dañuy défilé ci dëkk bi ne dañuy xeex ak booy yi mais loolu kenn ku nekk gis na ko loolu ñëpp gis nañ ko maintenant lan lañu war a def ba lii nga xam ne moom mooy situation bi ñu dakkal ko kenn donc moo ko mën mooy le président de kenn donc moo yor solution mooy le président Macky Sall il doit tout faire ba lii nekk ci réew mi ba situation bi ñuy dund ñu dakkal ko moo tax ma ne la y aura des enquêtes qui seront ouvertes le moment venu pour que ces histoires de nervis ñu tirer ko au clair mais may ma jafe-jafe yi nga wax léegi yaa ngi tudd internet ak leneen ak leneen ak leneen mais may mun a man dama xalaat yi nga xam ne gis nañ ne tey dara doxul ci réew dara yënguwul ci réew lépp loo gis ci réew mi ci wàllu jafe-jafe lépp loo xam ne nit ñi ñu ngi koy am comme comme comme euh, situation mais yow xam na ne nit ñi dañuy ñëw biir Dakar nit ñi dañuy ñëw biir Dakar ak seen euh, ñëw liggéey suba gi bu midi jotee ñoo am dépense yónnee seen kër mais ñoo ñu doon yónnee seen kër sax mënatuñ ko. gaz tey am na ñu ko mënatu. carburant maire bi tax taxaw xam nga carburant pour yéen la boos yi luxe. luxe la ah, mais ñi nga xam ne dañuy def. caaf ak yow. mais ñi nga xam ne dañoo teg seen taabalu caaf. mais ñooñu tey ji jaaxle nañu parce que maire bi doon jaay fonde mënatul jaay fonde ci koñ bi. ñemeetul. ñemeetul parce que mënatul génn suñu doom yi waroon jàngi jàngiwuñu. mais mais mais mais Bouga. mais loolu yëpp may mun a benn responsable. du benn responsable may mun a. du benn responsable euh, kese. sécurité sécurité la première de sécurité mooy d'abord la démocratie gis nga boo toogee ci sa kër naan sama yoon nekku ci situation bi dal nii Sénégal moo lay dal. xam nga kenn mënul wax ci situation bi génn ci président ndax moom la Sénégalais yi fal jox ko tous les moyens de gouverner jox nañ ko majorité benn yoon deuxième fois bi ñu wàññi dooleem. jox nañ ko la majorité des collectivités locales donc moom moo war a sàmm démocratie mhm. état de droit ak l'équité dans la justice mhm. beneen mbir mi mooy bi verdict bu procès Ousmane Sonko bi génnee euh, beaucoup de gens se sont se sont am na ñoo xam ne ils ont manqué à la responsabilité mhm. parce que bu fekkee ne dossier la boo xam ne dañ ko instruire deux ans mu indi li mu indi yëpp Sénégal ñu njëkkoon a teg loxo ci dossier ba amaan na mu mënoon nañu arrêté mbir mi yépp bi ñu sumbee procès bi yegg si ba fii man de bokkoon naa ci njàpp ne xëy na bu ñu defee loolu yépp ils ont des raisons de loolu am nañu ay preuves mais ca cappaandaw ba dañoo disqualifier les faits condamné Ousmane mu am une condamnation morale éthique et morale et pour cette condamnation la pour ce verdict la beaucoup de Sénégalais sont morts loolu aussi mu nekk responsabilité président de la République waaye tamit dafa bokk ci responsabilité la classe politique on a une génération d'hommes politiques qui sont qui ont soif de pouvoir ñu gëmul seen bopp gëmuñu ne ñoom compétition mun na leen indi ci élection pendant tout ce temps lan ngeen ñu doon wax confrontation Ousmane Sonko mu ne combat final confrontation Macky Sall dinañu abal te Macky ay carte moo ko teg ay carte moo ko fa war a jëlee bu ñuy tirer responsabilité bu ci ëpp dañ koy jagleel président de la République mais dañ koy jagleel cette classe politique là et jusqu'à présent je vois des hommes politiques sénégalais tenir un discours politicien pendant que ay doomu Sénégal ñu ngi dee ñoom li ñuy wax rek waxu troisième mandat Macky Sall waxagu leen ne day nekk candidat sénégalais yi di dee ñu topp di def ay communiqué des anciens premiers ministres di def une tribune pour parler de troisième mandat c'est pas cette classe politique là qu'on a eu en 2012 du classe politique bi lañu amoon 2000 yéen ñëpp muy camp pouvoir muy camp opposition yéen ñi bokk politique bi ngeen ne da ngeen bëgg fa tey bi yéen ñëpp on doit vous imputer la responsabilité de la situation que vit le Sénégal donc yow. oui j'attends la question. dañ leen ko war a imputer waaw wala déet dañ leen ci war a boole fu ñu tuddee Macky Sall dañ leen ciy tudd. alors Maïmouna vous avez l'heure est grave. et je voudrais très honnêtement que tout ce qui est wax waxi caaxaani les caaxaanari politiciennes la ñu teg ko de côté. mais caaxaanari moo ñu indi fii ñu wax ci réew mi. justement xam nga may mun a réew mi kenn lañ fal dama lay delloo ci lu ñu ñuy nettali ci taarix ñu ne sëñ Abdoul Ahad Mbacké mu baax ma. Euh, ca Touba dafa am benn moment mu wuti ay gendarme ak i policiers ñu ñëw marché Ocass dugal fa ay xaj dégg naa mag yi Touba yi def délégation dem seeti ko ne ko sëñ bi de euh, sa wuy jur bu baax ba mosul nangu ay xaj di dugg ci dëkk bi mu tontu leen ne sama wayjur bu baax bi ba mu fi nekkee ay xaj nekkuñu fi woon waaw kon léegi tey bu fi ay xaj nekkee bay def jëfi xaj dañuy indi seeni moroomi xaj ngir ñu génne seeni jëf c'est ça la réalité et fii tey comportement ba ñu amoon tey ñun ñii ci classe politique bi cette nouvelle génération de politique bokkuñu ni ñuy xalaate bokk ñu ni ñuy gisee bokk ñu ni ñuy jëfe man Bougane yaa ngi koy wax léegi téye nañ ma ay yoon yoon ci élection te teewul tey laa gën a takku di xeex yenn saay sax nit ñi di laaj looy xeex parce que yow amoo candidat ci législative yaa ngi xeex man leen man ak yéen mënuñu bokk logiciel mënuñu bokk nit ñi xalaate man Sénégal moo ma ñor yàq le Sénégal qui m'intéresse et ce comme là c'est ce que nous en train de faire may mun a ce qui est en train de se passer c'est le comportement des hommes du système Macky Sall c'est un homme du passé la preuve il utilise lépp lu amoon jamonoy Senghor jamonoy Abdou Diouf moom lay delloosi waat teg ko ci taabal ji les même pratique ba ci compte k bi fi amoon ñu defoon ko pour satisfaire une clientèle politique dafa ñëw indi DER pour satisfaire une clientèle politique taf yëngal situation yooyu rek lañ nekk léegi tey ces jeunes qui son sortis dans la rue Maïmouna ces jeunes ont soif de démocratie ces jeunes ont perdu tout espoir pour mun a doon dara wala tekki dara ci réew mi Macky yamul rek ci réduire l'opposition à sa plus simple expression dafa réduire la démocratie à zéro jël la justice manipuler ko jël justice dëgg tànkam teg ko ci wala mu jël concam teg ko ci c'est pourquoi ce qui s'est passé à l'université est déplorable mais quand j'ai discuté avec un jeune étudiant en droit lu ma wax mu ne ma mais bu fekkee ne faculté de droit li ñuy jàngal amul njariñ da ngay jàng ba pare dem ay politicien di la manipuler di la def loo li nga li ñu bëgg ñoom ci droit c'est catastrophique lu nit mun a dégg la donte mais mais mais Bougane rassurez-moi vous n'êtes pas en train de légitimer ce qui s'est passé à l'université may may yeggale waane nettali sa gént nettali sa gént non ma ne vous n'êtes pas en train de légitimer ce qui s'est passé à l'université dama ne dama ne donte man munuma bokk ci ñuy nangu loolu dama ne lim ma expliqué laa lay wax am na situation yoo xam ne kenn mënu ko mënu ci d'accord c'est comme ni nga may wax oui am na ñu génn am na ñu na mais may mun a démocratie mooy garantir liberté yépp sécurité bi njëkk mooy démocratie tey bu ñu génnee ci mbedd mi mais ku nekk ak li ko tax a jóg am na koo xam ne day défendre démocratie en général am na koo xam ne leader am moo ko tax a jóg muy Ousmane Sonko am na koo xam ne li ko tax a jóg mooy am lu mu def ci biiram am na keneen koo xam ne jàpp na ne moom dafa war a jër revanche ci société bi parce que musul dugg au amul possibilité dugg au te loolu dara tegu ko ko lu muy njiit yu bon yi nekk ci réew mi il faut du tout pour fair un monde waxuñu ne loolu normal na mais situation la bu nit mun a expliquer ces jeunes qui sont sortis dans la rue parce que dañu jàpp ne seen avenir dafa hypothéqué wu dañu leen digoon yaakaar tey ñu teg leen ci yoonu yàqute waxuma ne réew mi dañ ko war a yàq man ku yàq réew mi buggaan doo mais xam nga jeune du ma la ci jàppale Sénégal ma ci boole Sénégal jusqu'à un passé récent buñ daañ contesté dañuy dem place de la nation y a bu beaucoup d'organisations non au troisième mandat aar suñu pétrole aar suñu moomeel euh, mu nekkoon une logique une cohérence bu ñu yàgg topp mais les hommes politiques ñoo organiser des jeunes yi di jàng defar cocktail molotov taal garu terre yàq berte taal des écoles c'est un crime ce sont des hommes politiques ñoo leen sponsorisé autant ngeen ne Macky Sall veut faire peur aux Sénégalais pour que ñu ne moom moo fi sës ñu mun koo tog tegaat autant y a des hommes politiques yoo xam ne jàpp nañu ne il faut créer une situation de chaos pour précipiter le départ de Macky Sall ou même faire en sorte que communauté internationale dugal loxoom ci ci ci ci ci ci ci mbir mi ci côté Macky comme ci seen côté dañoo ngebb ay jeunes yéen ñëpp da ngeen am ay nervi du nguur gi rek am ay nervi ah tous les hommes politiques ils ont des nervis koo ci gis am na ay nervi yu muy yu muy yu muy kii ñii di cibler les maisons de presse di yeewu naan dañuy attaquer TFM dañuy attaquer pourquoi ñu ne si TFM ak 7 rek la ñuy attaquer dañu leen tous ça dañu leen sponsoriser diriger leen pour que ñu nuire à des à des à des à des Sénégalais pour pour que pousser l'armée à prendre le pouvoir est-ce que mën nañu nangu aujourd'hui Sénégal fu mu toll ci niveau de démocratie que des hommes politiques di des jeunes pour que ñu yàq réew mi ok ce jeune là bi lay étudiant boobu bi lay war son argumentaire n'est pas acceptable. il y a rien qui devrait justifier qu'on brûle la faculté de lettres ou la faculté de droit qu'on brûle le CESTI. dara mënu ko justifier. mais dara mënul justifier loolu kenn jéemu ko. mais pourquoi donc yéen ngeen di chaque fois da ngeen di trouvel jeunes yi ay ay ay ay ay ay ay nu tudd ay ay argumentaire pour justifier leur comportement. ok. nit ki du question dalay ngàdd nga nga nga dóor ko kuur. pourquoi ngeen leen di wutal argumentaire. jërëjëf léegi da nga ne est-ce que war nañu nangu nangam ci démocratie ci Sénégal. je te retourne la question est-ce que war nañu nangu Sénégal président de la République di xool ku ko neex ne ko yow mii doo dem élection may mun a làmmiñ bu waxul dëgg wax fenn warul nekk ah, waaw mais ma ne làmmiñ bu waxul dëgg day wax fenn Macky Sall situation réew mi moom moo ko indi moom moo xool ay nit ba mu neex ko mu ne ñii duñu bokk ci élection utiliser justice utiliser beneen subterfuge bu ko mun a neex parrainage whatever ak lu mu mën a doon ne diw mii doo bokk xool ki ko neex ni kii mooy bokk may mun a làmmiñ bu waxul dëgg wax safaan mënuloo wax ñii résister ne leen bàyyi leen résister alors que kii dóore nee woo ko bàyyil dóore kiy résister c'est parce que dañ koy dóor donc ki yor yat wiy dóor moom ngay wax ne ko bàyyil dóore bi c'est ça la réalité ces gosses qui sont dans la rue soxla wu ñu ku leen yedd may mun a yéen mënoon euh, ngeen leen yedd may ah, ba ma ba rek yéen mënoon ngeen leen yedd mënoon ngeen leen wax du ñu xeexee noonu <coughs> du ñu xeex yàq réew mi xam nga réew mi kenn amul intéret ci réew mi yàqu waaye yàlla buy alak askan sax ñi ko tooñ ak ñi ko tooñu yëpp da ciy boole a un moment il faut comprendre ces jeunes qui sont dans la rue man waxuma ne li ñuy def lu normal la mais dama ne li ñuy def mën naa expliquer lu tax may mun a c'est pas parce que <laughs> yow tu as réussi tu es dans ton coin tu emploies des Sénégalais ah, ah. mais oui parce que tu penses que parce que tu penses que man awma problème combien de Sénégalais combien de sénégalais yow bokkaloon. ku ku nekk ak say niveau de problème. waaw mais justement. <laughs> mais au moins yow am nga ay problème xoolal xoolal gis nga booy yi nekk ci mbedd mi ñoom dañu bëgg am problème sax te mënuñu am problème. yow am nga problème yaa ngi sant yàlla. je ne le souhaite pas d'avoir mes problèmes. mais ma ne ñoom bëgg nañu am problème xam nga nekk pauvre Sénégal ak nekk pauvre France du benn. les gens préfèrent être pauvres en France qu'être pauvres au Sénégal yow say problème yi nga am. te ci jooytu naan yaa ngi am ay problème jeunes yi nekk ci mbedd bi ñoom dañu bëgg am ay problème comme yow pour di ko résoudre et ils arrivent pas à le l'espoir de ces jeunes dañ ko rey pourquoi ay njiit yu bon mensonge fen wax lu dul dëgg lekk alalu réew mi seen bopp seen njaboot ak ñi leen wër donc on a tué l'espoir de ces jeunes alors maintenant boo yi nekk ci mbedd mi nga ne leen non no non non votre colère vous ne pouvez pas l'exprimer vous ne devez pas l'exprimer comme ça dama ne mun a ma conviction c'est que boo yi soxlawuñu ku leen yedd dañu soxla ku leen yërëm parce que yow nekkuloo ci situation boobu yow demuloo ci situation boobu yow yegguloo ci désespoir di sol carax ak short toog 12 heures de temps ci seen bopp koñ mu wóor la ne amuloo dara loo def jàkkaarloog sa yaay mënuloo ko sax jëndal mbuusu ndox boo bëggee euh, suba da ngay fexe dem gis sa copain ne ko non booy yóbbaale ma alors ces gosses là waxuma ne li ñuy def lu normal la il faut que ces politiciens également qui comprennent que ces jeunes qui sont sortis c'est pas parce que diw moo leen tax a jóg am na ci ñu jóg pour politique am na ci ñu jóg pour xeex démocratie am na ci ñoo xam ne dañu jóg ngir amertume bi ñu am désarroi bi ñuy yëg ci réew mi te mënuñu ci dara may mun a ces jeunes qui son sortis nañ leen comprendre xale yi ngay gis ñu am 12 ans am 15 ans xam ba nga amee jamono jooju yow. xale yi am 12 ans 15 ans gis nga il faut. waaw même am rek may xam nga balaa ngay fel gémmiñu wali isam. entre parenthèses balaa ngay continuer on me dit que Macky mu ngi Touba. il va être reçu par Serigne Mountakha c'est une information de nos confrères de de de Seneweb qu'on en train de de vérifier ça peut être point. ma ne sëñ Mountakha ba mu ko waxee la mu koy wax defu ko. lan la ko sëñ Mountakha wax. mooy lii mu nekk rek Macky Sall dafa dëgër bopp <laughs> Macky Sall du matt te daggul c'est ça la réalité xam nga xam nga xam nga man euh, nit laa ko xam ne may mën a toctum ko ne man su ma waree jooy damay jooy su ma waree ree damay ree su ma meree nga xam ne mer naa man nekkuma ci naa fekk googu nit ñi di wane moi je suis pas dans ça moi je entier Macky Sall des fois nga dégg ñu ne wax leen ak ak ñi war a wax wax leen bu ngeen waxul dinañu leen euh, ku artuwul di nga àtte mais kilifa yi wax nañu ñaata yoon la kilifa yi wax ñaata yoon la kilifa yi wax ak moom damay reculer rek ci kaawu Karim Wade seen Sidi Motaar ñaata yoon la ci wax ak moom gëmul li nit ñi gëm ci beneen niveau la nekk Macky Sall li ko neex lay def li mu bëgg lay def may mun a def li la neex am li la neex mënul nekk da ngay def li la neex nit ñi def li leen neex foofu mu jëm ci sëñ Mountakha dara bu ko waxee mu ne ko waaw waaw Mbàkke yëngal bopp ah, ak ak sa waaw waaw bu génnee def lu ko neex et c'est comme ça qu'il a toujours fonctionné son dialogue pour en parler comment tu peux comprendre qu'il fasse le dialogue le mercredi dëkk bi tàkk la jeudi et taal bi tàkk ci dëkk bi c'est une réponse à la virulence et à la violence des paroles lors de son dialogue mm. sëriñ bu jàkkaarloog Macky Sall naan ko président gëmmal te dóor keneen ki daggee ci làng ga naan ko président gëmmal dóor waaye booy dóor deel xoole mais booy yi am nañu fulla ak fayda. la nature à horreur du vide. d'accord moo la nature. waaw a horreur moo tax booy yi bi ñu xippee. une partie des gens. qui au dialogue. ma du ñoom ñoo sekk. làngu ne politique bi. booy yi bi ñu xippee fayu nañu. gëmmal dóor xooleel dóor xippi fayu. une c'est ce que les gosses demoon ci dialogue bi bari na ci ñu jël parole. du ñoom ñoo yor en main le jeu politique. mais justement. la nature à horreur du vide. justement. yéen boo leen gëmee réew mi waroon ngeen dem ci dialogue ba la ngeen am comme revendication ngeen teg ko ci table bi d'autant plus que Macky Sall a dit qu'il n'y a pas de sujet tabou. d'accord troisième mandat sax dinañ ko fa waxtaanee. pourquoi yow nga refuser dem ci dialogue. troisième mandat dañ ko fay waxtaane te naan la booy wax ak man da ngay wax ak man ci njekk <laughs> non par force non loolu loolu après la oui mais yow ba ñu annoncé dialogue ba da nga ne doo dem waaw dialogue ba commencé dooma laaj nga ne ce sont des vieillards dooma laaj ñoom ñoo toog pour waxtaan laaj lu tax ëllëgu dooma laaj lu tax euh, dew ma ci dialogue Macky Sall lu tax nanguwuloo dem ci dialogue wóoluwuma ko mais wóoluwuloo ko ci naka sañ naa ko wóoluwuma ko parce que dama gis ñu mu dialogueel ñëpp te jurul dara gis ñu mu dialogueel rocc leen dugal leen ci boppam. mais mun leen ko woon mettre à l'épreuve des faits. magum jëmm day ni ma waaw moom président de la république. yow yow may mun a Macky Sall moo la gën a moo la gën a xam lu baax ci réew mi bu fekkee ne lu war a defar réew mi la Macky Sall mi ñu fal pendant douze ans mu nekk ci bopp réew mi moo la gën a xam yow lu baax ci réew mi. mais mën na am dialogue bi c'est une main pour faire ko Oui, mais pour que les acteurs se retrouvent pour, pour et, se, et, se, et, se, et, se, mettent d'accord mm -hmm. autour des règles du jeu. Parce qu'aujourd'hui... C'est quoi les règles du jeu La question du parrainage. D'accord la question du ah, parrainage, la question des libertés publiques, moi la question des détenus, mhm. la question des inéligibilités, mm -hmm. la modification de l'article 56, L29 L30 yooyu yëpp ay question la ay point la yoo xam ne mënoon ngeen dem teg ko ci table bi ah, pour vous assurer euh, nu mu tudd une bonne tenue ah, de l'élection présidentielle léegi léegi léegi yow loolu mooy sa xalaat waaw waaw léegi yow nangul ma man ne xalaatew ma noonu xam nga loolu aussi mooy démocratie. non dama la koy nangu. waaw waaw d'accord mais je m'étonne que ngeen ne mbir mi doxul. ba pare mu ne leen kaa leen ñu waxtaan ngeen bañ. waaw léegi lan ngay waxtaanee ci la ngay waxtaanee moom mooy xool timing bu ko neex. ak solution yi nga xam ne def na ko clé en main ba pare moom lay ñëw tegal la ci taabal ji keroog seen lancement bi wax ma lu fa juddoo lu nit mun a jàpp ay màggat yu xobidaas ànd ak sengoor ndékkeeg Senghor añ ak Abdoulaye Wade Abdou Diouf njogonaloo ak Abdoulaye Wade reer reer ak Macky Sall des gens yoo xam ne xamuñu lu code woyofal di jar ay nit ñoo xam ne xamuñu lu lu lu facture mais parce que yéen a gedd seen cër may ma rek may ma rek ma yeggale yow tamit xam nga aussi mënoo ne da ngay waxtaanee ëllëgu réew mi dem fekki ñoo xam ne ils ont leur avenir dans le passé nga ñëw ne leen da ngeen di ñëw toog ñëw leen ma waxtaan ak yéen mbirum réew mi Macky Sall loolu ñoru ko dóor marto la xam nga loolu paa la koy def mais ñun suñu classe gi juddu année 70 ñun kenn duñu dóor marto parce que ñun jàpp nañ ne réew mi réew ay loi règle ak règlement moo koy doxal. mais mënu leen dóor marto moo taxoon mënu leen dóor marto. mënu leen dóor marto non la preuve dóor marto gi tey. dóor marto gi tey moo indi gëmmal te dóor dóor marto gi moo indi président xoolal te nangam sàngam la ñu fa wax yépp wax ma lan moo ci luy defar réew. xam tey lu dul lu dul Bamba Dièye mi ma jàpp ne wax na fa wax ju nit mën a dégg mais maintenant wax nañu ko mais c'est quoi. xam nga tey. may ma parrainage parrainage Macky Sall moo ko fi institué Macky Sall moo moo moo imposé le parrainage et yow ak sa moroom xam ngeen ne parrainage c'est un filtre. bu Macky sàll jël ku ko neex mooy jàll ku ko neexul di jàll la preuve mu Ndiaye Cissé du jël na fa parole naan wuy am na ñoo xam ne xam nañ ne am nañu doole pour mën a am parrainage ku mel ni Bougane oui ay doublon la am c'est pas vrai man aw ma ay doublon législative aw ma ay doublon xam nga lan lañ ma wax dañ ne ma tu as 19000 sénégalais qui ne sont pas des électeurs may a am carte d'identité am numéro de vote am am lépp am fu muy voté nga jàkkaarloog moom ne ma kii c'est un non si y a des Sénégalais qui ont la pièce d'identité qui ne se sont pas inscrits à temps et qui sont non électeurs alek yow yow pour ñun ñun ñun tuune nañu ba jël ay non électeurs di ko jël di ko dugal ci fichier bi ñun mën nañoo cuune noonu may Maymuna j'ai réussi fu gën a metti politique il faut ñu waxante dëgg il faut pas que ñoom. mais foofu nga xam c'est politicien non. mais ah, si ah, Bougane non la. moy mooy la mooy xam non foofu. foofu waaw luy xam. foofu dama fa am légitimité. xam nga xam nga xam nga la politique nag. vous savez vous savez vous savez. vous savez vous savez ce qui est désolant. c'est des gens comme vous. tu t'es battu. tu fais partie de ces gens qui emploient des Sénégalais. nga war a ñëw xool ay nit. yu tekkiwul dara ne non ñii ñoo war a politique man du ma politique. non non mais justement. non pourquoi tu penses que. non pourquoi tu penses que Bougane. non yow Bougane dafa am ñeneen ñu war a politique. déedéet justement parce que quand tu me dis quand tu me dis dafa am pièce d'identité yoo xam ne dafa am ay non électeurs. Euh, madame je veux dire quand même on sait lire il a un minimum le système ne nous accepte pas nous. sommes des des antisystèmes paa yi toogoon foofu yëpp di waxtaan nga xam ne bi ñuy waxtaan ñoom li ñu waroon waxtaanee mooy maladie nangam fan lañ koy fajee diw moo nangam nangam naka la ñuy fajoo naka lañ lay wutalee prise en charge ñooñu ñoo toog ne ñoom dañuy décider pour yow sa avenir yow mi nga xam ne vous êtes entrepreneur yow mi employé ay sénégalais le jeune qui habite aujourd'hui à Touba Tawfekh qui a huit ans qui aujourd'hui chez qui on a tué amatul benn espoir pour mun a dimbali njabootam mun a dimbali yaayam ki nga xam ne mu ngi dëkk Idda Mouride. ki nga xam ne mu ngi mu ngi dëkk mais Khalifa Sall mi dem mi mi mi mi mi dem dialogue. mais c'est des hommes du passé. mais Khalifa Sall avait cent cinq cent millions de raisons. ma ne de ne pas aller soir avec Macky Sall. dama ne la. Khalifa Sall tëj nañ ko kaso ñetti at. xalifa Sall empêché nañ ko mu bokk élection ñu nangu li nga xam ne moom mooy mairie Dakaram Khalifa Sall mi dem élec mi dem dialogue mais yéen yéen gënu leen ko Bougane tey doon na doon neex li ngay wax fii nga dem ci sa cinq minutes yi nga jàkkarloo Macky Sall nga wax ko ko yow Abdourahmane Diouf Thierno Alassane Sall euh, Déthié Fall Aïda Mbodj Boubacar Camara euh, Abdou Mbaye Aminata Touré et j'en passe boo leen demoon ngeen relayer wu Sénégalais yi dégg dégg leen Macky Sall am amaan na dina leen dina leen dina leen dégg Ousmane Sonko on peut comprendre. Ousmane Sonko n'est pour aller dans un nga yow puisque yéen Ousmane Sonko aussi def bi bu fekkee na nga def émission ma bàyyi la nga def non non non puisque yéen non non je a xalaat nga soxla wala yow a wax xaaral ma mbaa même ma terminer puisque yéen Ousmane Sonko neen du dem dialogue ba ku dem dialogue ba tu es un comploteur yéen ngeen ne doo leen dem dialogue tu penses que moi je suis un suiveur Non, je ne sais ah pas. Ah non, là, vous m'insultez là. Non, non, ah non je ne dis pas que vous ah êtes ah non, un suiveur. C'est-à-dire que Ousmane Sonko le temps je, non, non, et tout écoutez, le monde a écoutez, refusé. Écoutez, écoutez, Je suis désolé. Je fais partie des premiers qui ont dit dialoguer au avec Macky Moi, je ne suis personne. Madame, moi, je suis. Moi, j'ai conviction là -haut. La preuve, beaucoup de gens ne comprennent pas c'est quoi mon engagement. may mun na su ma xalaat man danga ma koy nangul yow bu la neexee noonu la neex xalaateel man li ma xalaat mooy Macky Sall parrainage daf ko def pour xool kuy jàll ak ku dul jàll. mais vous en avez souffert. mais non mais et après de fois. à ce que ce soit levé. justement parce que justement je ne réfléchis pas comme vous. ah bon ah oui je ne réfléchis pas comme vous. ah dara. ma may ma yow tamit. nangul ma sama xalaat bu ko neexee parrainage bii di ñëw na ma bloqué waat barki xaadimul Moustapha amul tarafatal ay ni lu muy wàññi ci suma engagement pour moom Macky Sall mu jóge fi législative dañ dañ maa kale parrainage est-ce que daf ma daxa dem toog suma kër je me bats pour ce pays je me bats pour ces enfants qui ont été tués Maïmouna je crois au Sénégal Ma fille à le bac depuis deux ans. Elle, a la, elle avait la possibilité d'aller au Canada, aux États-Unis. Faut qu'on neex ci àdduna mu dem jànge fa. Je lui ai dit Sénégal ngay jànge. dama gëm réew mi dama jàpp ni réew mi ñun ñoo ko mun a defar et c'est ça ma conviction dama gëm ne ñi ñu jàkkaar lool ces gens qui étaient l'autre jour dans le dialogue de Macky Sall je trouve que c'est des dealers Cheikh Bamba Dièye n'est pas non, un non, dealer. Non, il y a des Khalifa Sall n'est pas y a, y a, un dealer. Nexé, je dis, il y va pour parler du Sénégal. il faut man nga bàyyi ma ma wax man sama xalaat wala man ma bàyyi la yow nga def sa émission nga wax sa xalaat c'est ça aussi la réalité moi je dis ce que je pense mais pourquoi nga leen di traité de dealer mais lan nga am ci table bi pour ne ñii dañoo dem pour deal euh, parce que tout simplement ces gens à, à quelques exceptions près il faut que je le à quelques exceptions près ña fa nekkoon li leen intéressé c'est comment sauver le système ce système que les gosses sont en train de may vaciller Maïmouna ce système est en danger ña nekkoon ci taabal ba foofu nee naa la kenn ci ñoom bari na ci ñoo xam ne xamuñu lu facture courant di mel bari na ci ñoom ñoo xam ne xamuñu billet d'avion fu ñu koy jënde fu ñu koy commandé bari na ci ñoom ñoo xam ne bu ñu demee di faju ji Paris seen facture euh, médicale mais état bu Sénégal moo koy fay vous pensez que si moi je viens au pouvoir en 2024 ça ça va continuer mais non ça peut pas continuer on a des enfants on a des Sénégalais de jeunes Sénégalais une jeunesse qui est aujourd'hui abandonnée une jeunesse boo xam ne xamul avenir am fu mu jëm cette jeunesse moo génn dans la rue cette jeunesse moo vacillé lo ce système là pourquoi tey Macky Sall woote ñoom ñëpp ñi nekkoon ci système bi ku mos ci système bi ku mus a mos ci système bi ku système bi dundal ku système bi yor ñoom ñëpp ñoo fa daje ñoom rek ñoo doon waxtaan mais ñun ñi taxaw ne gëmuñu système bi non ñooñu kenn demu léegi yow jàpp nga ne foofu dara luy jëriñ réew mi mënu faa sokkee ko. ma ne je te le dis et je te le redis. waa léegi. Euh, Mimi Mimi Touré ba muy wër Sénégal bi ma jàkkaarloog yow lu ma la wax. sa télé bii laa ko waxee ma ne leen mu ngi wër Sénégal di campagne kenn du ko def président assemblée nationale gis nga dialogue bi du jur dara Macky Sall les aura utilisés ñoom ñëpp parce qu'il est dans sa logique il a toujours été dans cette logique waa léegi nan nan la ñuy def ñu ngi ci statu quo il y a beaucoup de problèmes politiques euh, euh, concernant l'élection, l'organisation de l'élection, ceux qui doivent y aller. Aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, Khalifa Sall mënul dem. <laughs> Karim Wade mënul dem. waaw lu tax mënul dem. ah ñoom ñëpp lu tax mënuñu dem. frappé d'inéligibilité okay. à cause d'une condamnation. D'accord. Ousmane Sonko. ku ku ku takk buum bi seen baat diri leen yóbbu. Ousmane Sonko ku di takk buum bi seen baat diri leen yóbbu. du Macky Sall. Ousmane Sonko mënul mënul mënul dem. donc ñett ñi ñett. Ousmane Sonko fu mu. ba fii ñuy waxante yow lan moo tax mënul dem. en tout cas jusqu'à preuve du contraire. Ouais. jusqu'à ce qu'une décision de justice. waaw vienne démentir ça. waaw Ousmane Sonko mënul dem ba fi mu nekk nii am na am na possibilité. def si il est frappé mais Ousmane Sonko mënagul dem. il a déposé benn pourvoi en en en en cassation mënu dem. en tout cas on retient que y a trois candidats yoo xam ne. ce ne sont pas n'importe qui. Mm-hmm. mënuñu dem élection. Mm-hmm. problème mu parenage bi. 2019. Mhm. Euh, mhm. recalé nañu ñoo xam ne mënoon nañu bokk ci ci joŋante bi malgré la décision de la CEDEAO état du Sénégal mu ngi campé euh, sur sa position. aujourd'hui dans les prisons là il y a certains je dis pas tout le monde ce sont des détenus politiques. D'accord. ils sont incarcérés pour leurs opinions. politique. réew mi dafa xar ñaar. ñi nekk fi ñi nekk fi bu ñu waxtaanul. waaye ku ko xar bu ñu waxtaanul bugaan nan la ñuy def. non dama ne xam nga yow nitu dëgg ku ko xar ku yor sémmiñ bi di xaar. non man du ma répondre ci question dama ne boo leen waxtaanul. xam nga ko nan ngeen di def xam nga ko. yow xam nga kan moo xar réew mi. yow xam nga ku jaxase réew mi. waaw mais bu ñu waxtaanul nan la ñuy def. pour génn ci lii. waaw ki fi indi fitna gi. na bàyyi njuuj njaaj rek. mais Barthélémy Diaz nee na ngeen dimbale ko mu génn. dafa ne woon moom bàyyi na njuuj njaaj mais xam nga jikkoog boroom pax ci la dëkk du ci génn nee naa la dialogue bii ci njuuj njaaj gi la bokk maintenant qu'on nous dise oui euh, day bloqué diw day bloqué diw loolu mooy jeex ci Sénégal nu mais parce que danañ ko jëflante ak moom sénégalais yi ñoo moom réew mi Macky Sall donnul réew mi réew mi santul fay santul Sall santul Timbo les jeunes sont là les sénégalais sont dana nu jàkkaarloo ak moom lu mu ci bañul moom pour yàq réew mi ñun bañuñu ko ci pour defar réew mi. donc yéen pour que ñenn ci seen ñooñ bokk. vous êtes prêt à en découdre avec Macky Sall au risque de compromettre la paix sociale non, dans, le, ce, dans pays-là. Le problème, c'est pas une histoire de paix sociale. Euh, Maïmouna. La paix et la stabilité. Euh, stabilité réew mi ak jàmm ci réew mi ci mbagg kenn dong la nekk mooy président Macky Sall moom si boppam moo bëgg yàq Sénégal wax naa la ko sànq Macky Sall dafa am ay nijaay yu muy waxtaanal. nijaay yi ñan lay. mooy watara nijaayam la. ah d'accord mooy tonton baptisé day waxtaan ak Paul Kagame ñooñu ñëpp xoolal façon bi ñu yoree seen réew. ci logique yooyu la nekk malheureusement xamul ne tey Sénégal li mu ñuy tiitale mooy armée bi day jël pouvoir bi oui dana am instabilité ñun sénégalais yi ragaluñu loolu. nga yaakaar ne Macky Sall gënu la gënu la xam ne Sénégal du Rwanda Sénégal du du du du Côte d'Ivoire. mais jëfewu ko. nga yaakaar gënu la koo xam jëfewu ko bu ko jëfewoon du jël ay candidats di leen sàkkal pexe li mu def Karim Wade. dellu def ko xalifa Sall dellu di ko jéem ci Ousmane Sonko mën na ko jéem ci ñeneen ñi mu romb mais là nit ñi xam nañu fi mu jëm. fu mu jëm. mais fi mu jëm mooy fexe éliminer Ousmane Sonko tey yow jaaxalu la par exemple Bougane taxaw ni day défendre Ousmane Sonko. ok man man xam nga lu tax man papa comprendre. mais non non non xam nga lu tax. man comprendre mais mais xam nga lu tax. Hmm. xam nga lu tax. Hmm. moi la compétition madame. man gaynde laa <laughs> man dama ñame compétition dama bëgg compétition. c'est-à-dire mais dans la sportivité. da nga bëgg euh, Sonko bokk ci compétition bi. mais mais mooy tax mu neex. Ah. bu ma gañee man 2024 te gagné ma gagné ma gagné élection yi sans Ousmane Sonko mais loolu du ma neex. mais mais mais mais Bougane xam nga. man Fafa du ma la comprendre yaa ngi koy wax sànq ba ba tey. mais Ousmane Sonko dafa war a bokk ci ay élections pourquoi tey Macky Sall war a jàpp ne réew mi ndonoom la pour xool ki ko neex ni diw mi day jàll ak diw du jàll yow tey yaa ngi ci dans la presse waxuma waxu réew de waxuma waxu wut réew yow mii rek ni ñu séddalee aide à la presse d'accord ci. dëgg la wala jëluma ngànnaay. waaw waaw si kenn jëlul ngànnaay fii kenn jëlul ngànnaay ñun ñëpp dañu taxaw di wax ak moom mais ki ngay waxal moo jël police ak gendarmerie di la ko dóore xam nga sànq yaa ngi wax naan jàmm jàmm jàmm ku bëgg jàmm dina fekk waa F24 ñu war a def seen jaloog yow nga ne da ngay dialogue ak màggat yi ñu ne la bu la neexee dialogal mais ñun dañuy dialogue dialogue du peuple. ñu woon droit tere loolu moom loolu moom xaw ma kan moo leen inspiré décision boobu. Ah, on est en démocratie après tout. d'accord alhamdulilah bi nga d'accord ci. non on est en démocratie on doit laisser les madame ki ñu yor buur la jàppe boppam c'est pas pour rien qu'on l'appelait buur parce que doxalinu buur la am dañu ñëw tere ko waa vingt 24 ñu dem ci siège Malick Gakou. mu yónni une centaine de gendarmes ñu ñëw fekk fa leader yëpp ne leen génn leen ñu génn immeuble bi moment boobu moom muy organiser dialogue alors que pour man les gens pouvaient dialoguer à distance moom mënoon na def dialogue am ñu def suñu dialogue après ñu jël en 2008 les assises nationales dañ nekk di assises nationales di tenir seeni rencontre le pouvoir créer xawma ay assises républicaines am mu nekkoon un débat d'idées Ah, mais, mais nous, on a affaire à un despote. Macky Sall c'est éclairé. xam nga li doon wax jamonoy jamonoy. bugaan yaa ngi yaa ngi teg mooy rek. mais non c'est la réalité. non yaa ngi teg mooy rek. <laughs> mais c'est un despote éclairé. <laughs> yaa ngi yaa yokk li ma wax li ma wax li ma wax li ma wax dara nekku ci. mooy Macky Sall buur la jàppe boppam mais buuru jamono ji mais mais buur boo xam ne euh, boole na ci daf ci boole. Euh, yeewu tegu gu gu gu gu am solo rek mais li ma la bëgg a wax mooy tey ñi muy doxale mooy ni buur yi daan def ñëw rëdd seen rëdd ne fii tey ku fi fanaan di jàmm foofu lañ toll ak moom xam nga laaj naa la lan mooy solution bi nga ne di ngeen xeex ak moom Ousmane Sonko dina bokk. mais parce que Ousmane Sonko dafa war a bokk par force. Ousmane Sonko dafa war a bokk. yow yow yow solution bi mooy confrontation. non je je suis pas forcément dans la confrontation parce que confrontation bi kenn moo ko bëgg yow yàgg ngay dégg ñu ne la Macky Sall ne connaît que waxal yeggale ko yaa ko gën a xam. le rapport de force yow yaa gën a xam ne responsabilité des yaa gën a xam ne Macky Sall rapport de force dong la xam et rapport de force boobu mu sumb ci Sénégal mais loolu Sénégal soxlawu ko madame. mais mais on nous dëkk bi am na pétrole moytu leen nangam nangam ki yor almet bi ci pétrole bi Macky sàll la. la stabilité de ce pays repose sur les épaules de Macky Sall ñun li ñu am moo ëpp pétrole li ñu am moo ëpp or sénégalais bu mënee xiifee lekk feebaree faju leneen loo ko def nangu na. malheureusement tey jii may mun a ces jeune qui son sorti dans la rue ki taxaw ci buntu Auchan bi di xaar ñu dajji Auchan bi pour mu jël saaku ceeb yow kooku danga nga koy juger ah oui Bougane c'est-à-dire c'est c'est ça le danger vous ne pouvez Bougane toi tu es imaginel nit ñëw fekk sa parking boobu fekk say batiment parce que dafa mere état mu lakkal la ko Auchan investisseur lañu ils emploient des Sénégalais. D'accord. Auchan dafa arranger la classe moyenne bu njëkk ba supérette les les les privilégiés ñoo ñoo fa daan dugg ay casino yi ñoom ñoo fa daan dugg Auchan dafa ñëw wàcce gam bi sénégalais yëpp léegi dugg ci kii lan moo war a tax ñu ne jeune bi am na droit dajji Auchan bi jeune bi amul droit dajji Auchan bi même si la fin bul ma wax loo bul ma wax loo lu ma waxul ni nga amee yow possibilité dugg ci Auchan bi parce que jàpp nga ne yow mi bokk ci non eh, non non non CSPCA B plus non non non non ne prends pas exemple sur sur moi voilà man je suis une citoyenne sénégalaise et j'ai des problèmes inimaginables donc man je ne suis pas la bonne exemple léegi léegi may nangul ma ah. sénégalais bi bokk ci catégorie CSPCA A plus B mu wala C même si tu veux mën a dugg ci Auchan bi xam nga kooku yaa ngi koy justifier ne dafa war a dugg ci Auchan waa léegi jeune bi am 22 ans mënta jëndal yaayam ceeb nag. bugaan xam nga ñooñu. yow tolloon nga ci 22 ans. oui mënoo jënd daal la. d'accord da nga xeex. d'accord da nga jàng. d'accord da nga liggéey. c'est-à-dire il faut qu'on en revienne à valeur valeurs là. ok aujourd'hui ñun ñëpp tolloon nañ ci ci ci mënuñu jënd euh, carax. may mun a may mun a est-ce que jàng tey mooy tax nit tekki. mais euh, euh, est-ce que liggéey tey bu leen renverser may ma rek may ma rek madame. est-ce que liggéey tey mooy tax nit tekki. ñaate booy ñoo ngay gis nga romb ci yow booy ñëw nga romb fii ci rond point wakam bi booy yu toog foofu ñoo la ëpp diplôme junni yoon mënuñoo am liggéey ñan moo leen ko teg réew Sénégal dong ngay gis nit di liggéey di torox nit di ñaq di walaakaana nit toog fi mu toog yor téléphone am wala mu jaaxaan yëf biy dox walla mu tëdd affaire bi naaw ces jeunes qui sont dans le désarroi, ces jeunes qui sont dans la rue, ces jeunes qui sont en train aujourd'hui de se battre avec ces forces de l'ordre da yaakaar ne ñooñu def nañ lu leen neex ñoom bu ñu dem seen sogo du ñu am 4-4 euh, comme yow du ñu liggéeyloo ay nit ban mérite nga am ñoom bu ñu amul malheureusement dañu am ay njiit yu bon yoo xam ne ñoo yàq réew mi ay njiit yoo xam ne dañu jàpp ne seen confort ñoom ah moo moo nekk on the top et loolu il faut y mettre un terme. il y a deux semaines may ma il y deux semaines dama dem non même pas deux semaines peut-être dix jours dama dem dans le Saloum je suis allé à Koungheul dem Ida Mouride dem Sali Escale dem euh, euh, euh, Ribo Escale dem Lour Escale dem Kacot dem Boulel. may nuyu xadi bi nekk nju njuujeen c'est une dame qui a pris la parole mu ne ma buggaan ñun fii ci njuujeen suñu case de santé bi mu ngi noonu demal nga xool ko pajaas la ñu lal ci suuf kuy wasin ci suuf may wasine vous pensez à ces gens j'ai fait trente villages en deux jours j'ai fait trente villages dans le Saloum quatre-vingt-quinze de ces quatre-vingt-quinze pour cent de ces villages quatre-vingt-quinze pour cent de ces villages amuñu ndox amuñu courant cent pour cent de ces villages de ces trente village amuñu activité économique may mun a quatre-vingt-dix pour cent de ces trente villages amuñu case de santé ci jamono boobu Macky Sall xool corniche bi muy jaar ba mu neex ko mu ne daf ci def ay njoowaan daf ciy def ay fleur jël vingt-trois milliards def ko fa xam nga avec vingt-trois milliards à sa place moi j'aurais à quoi à mille forages je vais permettre à mille villages ñu am ndox. mais Bougane je vais penser à à à à équiper mille cases de santé je vais penser à avoir mille ambulances tricycles pour ñuy évacuer nit yi et Dieu sait que mun na nekk. tu prends des échangeurs tu les mets un peu partout dans Dakar deux cent quinze milliards. nga ne Non, vous là, là, là, là, vous faites, oui. vous, là, là, là, vous faites dans le populisme. Oui. Non, je suis désolé. Le développement. Vous le développement. Bougane. Non, mané, non, Bougane, li ngay wax xam naa ko bu baax. Le développement, c'est un tout. Échangeur ci la bokk, case de santé ci la bokk, forage ci la bokk. Il faut arrêter. Le développement, c'est un tout. Gis nga, c'est pas parce que vous faites du journalisme. qu'on vous qu'on qu'on vous qu'on vous qu'on vous inculque certaines choses pour que bu nit ñi taxawee di wax vous êtes en train de les contrer pour leur le développement c'est un tout madame je suis Sénégal gënoom man man gënoom a xam ne le développement c'est un tout man mi jël suma oto ma ne man l'un n'explique n'explique pas l'autre man mi jël suma oto di dugg ci àll bi man gënoom a xam ne le développement c'est un tout mais on a des priorités madame ces priorités est-ce que xam nga entre mars 2021 ak tey c'est plus de 300 milliards qu'on a dépensé pour armer nos forces de défense et de sécurité. Ah, bu ñu armé wul ah, may ma may ma waaw lu mu euh, on ne s'arme pas pour tuer les Sénégalais da nga may bàyyi da wax sama xalaat. mais on ne s'arme pas pour protéger le pays. mais la meilleure des sécurités c'est de permettre à ces enfants d'avoir du boulot. je suis d'accord waaw man waa léegi d'accord ne man bokkuma ak ñoom xalaat. mais on ne s'arme pas pour tuer les Sénégalais. Ah, mais, on doit s'armer waaw d'accord pour notre souveraineté. Eh, madame moom lu mu waxoon du lii du fi amati lii fi am dootu fi amati man ba mu ko waxee dama jàpp ne il a compris le message des jeunes malheureusement il n'a pas compris ce message. on a pris 300 milliards pour armer nos forces de défense et de sécurité mais population bi bi ñu jógee est-ce que force de défense et de sécurité yooyu dañ leen mën a téye. mais armée du pour ñoom madame madame. j'ai dit l'investissement c'était pour le maintien de l'ordre peuple bi bu mu jógee même bu fekkee ne minorité moo génn minorité bi génn ñi ñu mënuñu leen téye madame un peuple ki se révolte amul benn président bu leen mun a téye li ma bëgg nga wax nga comprendre ko mooy man ak ñoom bokk ñu ni ñuy xalaatee d'accord may mun a sur san sénégalais yu nekk man suma position Bougane da ngay toog ak say jeeg di lekk say ginaar alors aujourd'hui dama bokk ci ñoom booy yi may gis ci mbedd mi dama gis sama bopp ci ñoom gis suma bopp ci xeex yi ñu daan xeex ak alkaati yi ab du Diouf mais xam tey ma bokk ci ñi nga xam ne yàlla dimbali na leen ba ñu am fu ñu jaar man Bougane dama jàpp ne boo yooyu nekk ci mbedd mi war nañu mun a ñoom tekki wala ñu war leen yoonu tekki. xam nga xam nga te ki leen di wan yoonu tekki mooy ki nga xam ne moom gis na xam na nu ñuy nit di def. mais Bougane donc donc quand je dis quand je dis aujourd'hui tu prends cent quinze milliards nga def ko ci ay échangeur man kër góor gi laa dëkk. échangeur bi ñu defal kër góor gi problème la ñu gën a créer que solution. ñi nekk kër guur gi ñu ngi may dégg. mais demal nga laaj mais mais sur un point Bougane xam nga tamit gis nga Macky Sall tey bokk na ci problème yi mu am daf ko topp ci na mu jëlee nguur bi parce que ba Macky Sall di jël nguur am na ay méthode de lutte yoo xam ne sénégalais yi xamuñu ko woon on a créé une psychose on a voulu mettre le pays en sac Abdoulaye wadd warul nekk candidat mu am les émeutes de l'électricité ay hommes politiques di dem di lakk di gëm loo nit ñi ne sénégalais yi ñooy jóg di lakk ñu commencé utiliser internet saaga Ablaye wadd ak njabootam ba mu jëlee nguur bi ña jàkkaarlook moom dañ inspiré wu de de quelques-unes de ces méthodes là et ñu rendre ko pire gis nga le prochain euh, président qui va gérer ce pays là il va avoir beaucoup de problèmes du fait aussi de yéen quand vous étiez yow tey suba boo jiitee réew mi Bougane Gueye Dany vous ne tiendrez pas le même discours xam nga lu tax parce que réalité yi du benn et di nga am problème parce que vous avez légitimé des choses qu'il ne fallait pas légitimer mm-hmm. ces jeunes là qui sont en colère la colère elle est justifiée du temps de Diouf moi je me rappelle quand j'ai démarré à l'université en 2000 je me demandais fan laay amee liggéey parce que je voyais ci sama koñ des vieux de cinquante ans qui n'ont jamais travaillé dans leur vie mais ces jeunes là da ngeen leen wax est-ce que warul leen leen wax ne carte lañ ko fiy jëlee c'est pas parce que danga nga da nga xiif que da war a daj au champ l'armée dañ ko l'armée dañ ko war a armée on mu pas l'armée la police et la gendarmerie pour tuer des Sénégalais le maintien de l'ordre ci développement la bokk bu ordre amul tey mu ngi nii y a pas d'ordre on peut pas travailler xam nga bi Cheikh ante Diop di wax loolu man jàpp ma ne sécurité bii la doon wax déedéet man la sécurité précède le développement bi ko Cheikh Anta Diop di wax dafa nekk sécurité alimentaire nekk sécurité sanitaire d'abord nekk sécurité ci sa avenir Maïmouna ces gosses qui sont dans la rue nee naa la encore une fois soxlawuñu ku leen yedd ku leen yërëm lañu soxla quand vous parlez de ces politiciens Maïmouna ñun on est encore un mouvement parce que dama gëm ne man du politique la pratique politicienne bi ñuy def Sénégal moom mooy changer Sénégal gëw ma loolu est-ce que dañu wax ne ñi ñi génn leen xeex déedéet. mais si mais non mais ma ñëw yow mais si rek Déthié Fall mu ngi def communiqué te naan la la ay la résistance continue. waaw parce que dañuy dóore. waaw ku ah. la dóor doo résister. waaye waa léegi waaw mais xam nga nag yow nag gis nga nag gis nga nag. dangeen ngeen war a def des messages de paix non Bougane Bougane faut pas jouer avec l'avenir de ce pays là. non attendez vous ne pouvez pas parce vous n'êtes pas plus patriote que qui que ce soit dans ce pays. c'est pas une question de patriotisme que les gens ont fait dans ce pays Macky Sall defu ko ci réew mi li nit ñi jëriñ réew mi Macky Sall defu ko ci réew mi dañuy dajale suñuy impôt ak suñuy alal di ko jox nous on s'est battu on a employé des jeunes sénégalais on de la richesse ak value valeur ajoutée li ñu indi ci réew mi Macky Sall defu ko ci réew mi donc il faut arrêter. mais réew mi bu nasaxee yow dootoo liggéey opérateur économique mais réew mi na sax waaw ku soxla réew mi na sax. mais faites un discours d'apaisement mais non mais ce discours d'apaisement yar leen xale yi. mais non mooy yar la yar leen xale yi mooy lan mooy yar xale yi. non lan leen ne yow gëmal li nga gëm. kon yow gëmoo loolu non mais dama ne yow gëmal li nga gëm. yow gëmoo loolu bàyyi ma man ma gëm li ma gëm li ma gëm man bugaan mooy xale yi soxla wuñu leen yedd ku leen yërëm lañu soxla et moi je préfère yërëm leen man dama leen yërëm et xale yooyu man dama leen tàllal loxo man ba may bokk ci ñuy defar Sénégal man xaw ma makki Sall ba may bokk ci ñuy defar Sénégal mais makki Sall kenn tudd ko moom ak keneen ak keneen ak keneen quand vous nous dites indi leen dal ci réew mi mais carton rouge makki Sall lan la. c'est un discours. Euh, c'est un discours. C'est un, un, discours, c'est un argument politique. Mais non, mais c'est un discours. plus fort. Mais non, en, en, en quoi Hein Li du message de paix. Quoi Du message de paix. C'est un discours. léegi yow lan nga bëgg léegi ki yor yatam di dóor nit ñi yow waxuloo kooku bàyyil dóore mais ki naan buñ ma dóor nga ne non non non yow bàyyil ñu dóor la. gis nga gis nga may attention attention ma xaara xaara attention. Macky Sall. Maymuna kenn waxu ma ne. Macky Sall mënul yor yatam di dóor sénégalais yi. leen C'est ce qu'il fait. Vous demandez aux gens d'arrêter de résister. Pourquoi les gens doivent pas résistance moo am ci démocratie. Mais justement parce que ki ñu jàkkaarlool mais parce que ki démocratie mu noyyi. Mais vous devez vous battre. Mais merci. Vous devez vous battre. Mais merci. Mais c'est pas se battre avec les armes. Moom nee na il sait se battre. Non, vous devez vous battre. Mais moom nee na il sait se battre. Ah. moom Macky Sall yow ki ngay défendre yow. non moi je ne le défends pas non si vous le défendez non je ne le défends pas. ki ngay défendre. je te parle à toi. waaw mais ma ne ki ngay défendre moom nee il sait se battre. moom il sait se battre et il aura en face le peuple sénégalais force restera au peuple c'est pas Macky Sall qui va déterminer naka la ñuy yore Sénégal. c'est pas Macky Sall moom mooy tracé chemin bi ne nii la ñuy defee élection yi parce que moom bokkul ci élection yi mais booy woote jàmm madame. mais ñun jàmm la ñu woote dañ ne carton rouge Macky Sall jël photom bi croix ko génn di ko jaay nit ñi nit ñi di xëccoo lii cent franc lay jar cent franc carton rouge Macky Sall da ngay gis ku ñëw taxaw ne la jaay ma dix mille damay takkal sama muus danaa takk ci buntu kër gi danaa takk ci ci ci ci porte oto forme de lutte mais c'est ce qu'on est en train de faire mais ñeneen ñi am beneen forme de lutte bu leen ko bu leen bu leen bu leen xas ñeneen ñi am beneen forme de lutte comprendre lan moo tax ñu nekk ci situation bi ñu nekk et c'est ça aussi la démocratie la démocratie c'est d'accepter non c'est d'accepter l'opinion et les avis Démocr des autres vous parlez d'opinion et d'avis justement démocratie c'est des formes de lutte conventionnelle waaw bu ñu la ko teree nag moom Macky Sall newul wuy wuy wuy yaa ngi fàttaliku la moo si si euh, Ablaye Wade déclare qu'il est vainqueur on ira le déloger au palais c'est pas un discours violent ça mais dites-moi si c'est pas président xippil dóor c'est pas un discours violent président booy dóor xoolal c'est pas un discours violent mais booy yi nekk ci mbedd mi nekk ñun bu ñu xippee dañuy fayu et c'est exactement ce qui s'est passé nee naa la man ak ces politiciens ñu bokk mindset madame man dama bokk ci ñi nga xam ne ci réew mi ay gaynde lañu on s'est battu ba yegsi fi ñu yegsi et man li ma gëm mooy cette population là cette jeunesse désori désœuvrée désorientée cette jeunesse il faut leur tendre la main et leur tendre la main gis nga may mun a dara du état état li mu mën kenn mënu ko ci ñun mais li état am ressources yi mu yor nañu ko def fi ñu ko war a def yow bu doon jàng rek ak ay diplôme am na ñoo bokkal classe am na ñoo bokkal promo ñoo la dàq jàng junni yoon non non je te tey ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ci réew mi amuñu liggéey je ne suis pas d'accord ñu ngi ci réew mi donc je suis je suis d'avis que réew mi dal stabilité la mais loolu Bougane ki ñu jiital ci réew mi loolu ay épaule am la nga keroog bi ma recevoir kan la recevoir un gars de l'affaire bi verdict Ousmane Sonko bi tombé dama jàpp ne am na ñu foowee réew mi ces gens là ils doivent répondre man nekkuma ci ay procès moral ces gens là yi nga xam ne ñoom ñoo bàyyi mbir mi ñoo suuxat mbir mi ils doivent répondre la paix sociale ci ndodd Macky Sall la nekk waaye Macky Sall ne ne contrôle pas tout le pays Macky Sall 56 pour cent de sénégalais ñoo ko tegaat mu nekk président am na 44 pour cent de sénégalais yoo xam ne ànduñoo ko Macky Sall ñenn ñi yow la ñu àndal ñu ci bari Ousmane Sonko ak Idrissa Seck la ñu àndal Idrissa Seck d'ailleurs mi di le chef de l'opposition la lañu la ñu na jël kenn ko ak moom billaay na jël kenn xëccoo ko ak moom ah kon yow tu le chef de l'opposition na ko jël billaay na ko jël kenn xëccoo ko moom na jël d'accord <laughs> lu tax xëccoo woo moom ko koy moom <laughs> chef de l'opposition lu mu am dafa am njëriñ. Ah, si ban njëriñ la am. dafa war a am dafa war a am ci <laughs> statut de. Ah, ñoom xëy na ñoo nekk ci calcul yooyu. mais li ma wóor mooy ñun ñi nga xam ne système bi lañ fi bëgg a jëlee. noonu ñun nekk ñu ci calcul yooyu. alors euh, donc euh, ñooñu noonu tey ñu ne am nañ ci euh, responsabilité waaye ñi nga xam ne Bougane dañu ànd ak yow ñi nga xam ne Ousmane Sonko bu nee bàyyi leen ñu bàyyi yéen tamit ngir jàmm réew mi seen responsabilité la ngeen ne nit ñi nañu bàyyi. yow boo waxee Malick Gakou wax ay Aïda ci wax Aminata Touré wax usmaan Sonko mi nga xam ne moom moo waral mbaboor gi wax ak ñeneen ak ñeneen wax kilifa diine yi wax réew mi dina dal ndax ndax dal boobu ñu ñëpp suñu intérêt ci la nekk balaa ngay xam njëriñu jàmm nga taxaw ci perte ko te tey dañoo taxaw ci tànku perte jàmm jooju jàmm jooju kenn dong moo mën a tax mu sax mooy wàcc ki bokkul ci dara non maa ko tey juutal ko ah, parce que bokkul ku bokkul mën na léegi moom bu xëyee na leen bokkul nag ban argument politique ngeen di amati dafa dafa deful dara lu war a tax ñu jàpp ne bokkul ah, si li muy def yëpp dafa ñun dañu jàpp day bokk waaw léegi bu waree bu ñu waree bu ñu waxee ne bokkul muy naxe mbay amul problème mais bu boobaa il aura la sur la conscience tous ces morts enregistrés parce que moom moo ko waral tous ces gens qui sont morts pour le troisième mandat moom Macky Sall il aura ça mais y a pas de mais ah, fii fii euh, fii oh, affrontement yi c'est pas affrontement yi c'est pas le troisième mandat non non non yéen yéen a bëgg a jël troisième mandat def ko une réalité te yeggaguñ ci troisième mandat man j'aurais compris non xaaral il est en train de baliser la voie pour une troisième candidature moo tax muy éliminer ay en janvier quand Abdoulaye le 27 janvier quand on a sorti les listes des candidats les Sénégalais dañoo engagé le combat pour le troisième mandat am na ñu naan du ñu xaar ba conseil constitutionnel wa mais li leer ba leer mooy mooy Macky dina def déclaration nationale solennelle dina wax ne day dem am du dem foofu la ñuy am débat troisième mandat parce que dañuy nax communauté internationale ak sénégalais bëgg leen gëmloo ne li am fi du troisième mandat la déedéet lu am fi du troisième am fi mooy dañoo condamné Ousmane Sonko ses partisans taxaw ne ñoom ànduñu ci ñu fesal seen mer leneen ak leneen dugg ci. d'accord léegi li am mooy tout est lié au procès Adji Sarr Ousmane Sonko. yow léegi ma lool mooy sa xalaat. non du loolu mooy sama xalaat yow. je te donne des faits nangul ma man sama xalaat man sama xalaat suma xalaat mooy dañu jël benn procès instrumentaliser justice ngir éliminer benn candidat. candidat boobu ñu bëgg éliminer yéene bi mooy mu bañ a bokk ci élection 2024 man ma jàpp ne Macky Sall moomul réew mi ñëpp ñoo war a bokk ci élection yi may mun a pour vous dire que réew mi dañ koy foowe dégg naa ci benn euh, déclaration euh, Mambay Niang au passage mu ne wéy dem nañu def naa saisie ci euh, ay bien wu Ousmane Sonko Ousmane Sonko dafa jël këram gu nekk gu nekk deux cent soixante quatre mètres carrés. deux cent cinquante six. c'est deux cent soixante quatre je vous la bonne information. non moom deux cent cinquante six la wax. deux cent cinquante six c'est deux cent soixante quatre mètres carrés. daf ko hypothéqué neuf milliards cent. xam nga loolu la wax c'est archi faux. c'est quoi la vérité. la vérité xam nga wax bu dofee nopp yi koy déglu mooy ñite. deux cent cinquante six mètres carrés R plus un noo ko mën a hypothéquer neuf milliards cent. moo loo loo loolu moom jaaxal na nit ñi. xam nga loolu moo loolu moo lay won ne ñoom xamuñu nu ñuy liggéeyee xaalis. xam nga yow mii nga xam ne bi ngay ubbi sa projet bii da nga def ay hypothèque yow xam nga ne kenn du hypothéquer deux cent cinquante six R plus un ci neuf milliards parce que xam nga ne matu mais xam nga est-ce que kër góor gi ñun ñi dëkk kër góor gi yépp Ousmane Sonko R plus 1 la am man ma am R plus 10 nekk sur 400 mètres carrés waaw Ousmane Sonko bu mu nee 250 mètres carrés mu hypothèque ko 9 milliards xanaa kon man sama R plus 10 sur 400 mètres carrés xanaa kon kat mën naa cee am 100 milliards. mais document bi Mame mbay wax ci wax ci du waxi nit. mais document bi mu exige dama la wax bu dofee nopp yi koy déglu. ñooy nit mais document bi mu exige nag. document bi mu exige boo demee def. euh, demander état de droit réel dañu lay jox charge yi nekk ci titre foncier bi neuf milliards et quelque la oui mais loolu sikap ñun ñi dëkk kër góor gi amul kenn ku ci mën a jël këram dem tey la ko banque parce que titre foncier parce que titre foncier global bi waa sikap ci seen bopp dañ ko jël def ci hypothèque bu 15 milliards. ci assiette foncière ci assiette foncière bi maanaam 222 hectares yi nekk foofu yëpp ña fa am kër yëpp amul kenn koo xam ne mun na jël kër gi dem yóbbu ko banque parce que SICAP moom moo hypothéqué titre foncier global bi. et pourtant on a fait une conférence de presse pour dire oui dafa jël kër gi daf ko hypothéquer neuf milliards cent moo tax ma ne la ñi ñu jiite bu ñu amoon tarafatal ay nit ci force occulte yi ñuy wax ñoom ñoo koy génne. force occulte yi seen gént la. mais sànq ba tey yaa ngi répété Mansour Sy Djamil ne dafa tenir des propos. oui j'ai j'ai reçu un, message de clarification ils disent que quand Mansour si Djamil di président gëmal dóor mooy appliquer les décisions qui seront issues de ce de ce dialogue la en fermant les yeux. mais c'est pas gëmal dóor sénégalais et je pense que même Cheikh Omar si même Cheikh Omar Sy bi nga xam ne ci nekkoon na député euh, sous la bannière de bés du ñàkk clarifier na. ils mais ñun li ñu dégg mooy gëmmal dóor keneen ki ni ko booy dóor xippil xool waaw gone yi nag ñoom comme xippi nañu ñoom it ñu fayu. mais Bougane. c'est un langage violent sànq sànq maa ngi la naan. mais mais mais c'était mon devoir quand même ma ma ma ma jox la sa version des faits. xam nga sànq maa ngi la naan man parfois du ma la comprendre dañ la déjà. ba ñuy def seen yeewi euh, dañoo ñëw def seeni couleur ñu wax ñu ne les partis euh, leaders c'est euh, PDS PASTEF Taxawu Dakar Sëriñ Mansour Sy PUR ñu yow nga génn parce que jàpp nga ne mbir moomu jaarul woon yoon plus sax tu diras que Khalifa Sall arrangé pour t'expliquer pour te pour te pousser à quitter li nga xam ne moom mooy euh, li nga xam ne moom mooy euh, euh, yeewi askan bi ñoom yeewi ñu dem élection ñu valider seen liste Dakar valide seen liste kii nu mu tudd suppléant éliminer seen liste titulaire yi ñuy battre campagne yow ngay battre campagne waa Pastef jàppale yow daal yow yaay seen punching ball favori mais Bougane communication boo jóg ñu dal sa kaw jàpp la jàpp la jàpp la man gëmoon naa ne am na moment boo xam ne yow ak Ousmane Sonko c'est fini mais ñu gis la fan yi nga mel ni ku lëkkaloo waat ak Ousmane Sonko moom sax dans une déclaration ndeysaan mu ne euh, président Bougane Gueye Dany keroog dafa dem Kaffrine Euh, ñu meeru Kaffrine ba attaque fa d'ailleurs loolu dinañ ci dinañ ci dinañ ci ñëw mu mel ni fan yi nag euh, voilà dafa am la miso euh, yow nee nga da ngay defaan Ousmane Sonko da nga bëgg mu nekk candidat Bougane ñun xam nañ politique de d'ailleurs d'abord ce ne sont pas des enfants de cœur qui font la politique gis nañ tey ñu bari tey ñu ngi défendre Ousmane Sonko ñoom seen bopp la ñuy défendre la ñuy la ñuy la ñuy la ñuy la ñuy liggéeyal tey ji tey ni ma la gis ngay def nii du ma bett ëllëg Ousmane Sonko bañ a dem mais mu joxe ndigal ci ñu jàppale la parce que vous êtes de la même génération da ngay nax Ousmane Sonko walla li ngay def nii conviction la. C'est question? Ouais. D'accord, Maymuna bu dawal yàggee gawar bu dawal yàggee. mooy bu dawal yàggee gawar feeñ bu dawal yàggee gawar feeñ. mooy lan. bugaan ak loo ko mën a waxal nangul ne nit la koo xam ne lu mu gëmul du ci dugg bugaan ak lu ko nit mën a waxal nit la koo xam ne. nitu conviction la Bougane ak lu ko nit mun a waxal mooy lu mu gëmul kenn mënta fexe ba mu défendre ko Yewwi Askan Wi la ma ci gisoon wax naa ko à l'époque et les faits vous ont donné raison waaw moo tax ma ne la bu dawal yàggee gawar feeñ la ñi ñuy wax ku nekk la nga wax yow la engagé mais man li nekk ci suma kanam non non wàccu ma ci dem maa ngi ci loolu ba léegi mais jàpp nga ba tey yaa ngi jàpp ne élection yi dañu rejeter sa liste mais danga nga campagne dama battre campagne soutenir Yewwi parce que loolu laa gëm dama gëm ne Macky Sall boo ma ko tegalee tegal ma bëy bu ñu musóor ma taamu bëy bi awma problème ak Macky Sall jikko yi mu yàq ci réew mi laa am ak moom problème dama jàpp ne garabu njuuj njaaj gi Macky sàll jëmbët ci senegal xob yi doon wor xob yi doon wax mu teggiku xob yi doon muucu alalu réew mi xob yi doon fexe ba ñi nekkoon di faj soxla démb tey ñu nekk ñi nga xam ne dañuy tàllal loxo ma jàpp ne loolu Macky sàll moo ko indi ci réew mi Macky Sall moo yàq jikko yi ci réew ma jàpp ne loolu dama ko war a xeex moo tax ma bokk ci ñi nga xam ne dañu doon campagne pour que Benno Bokk Yaakaar bañ a am majorité à l'Assemblée nationale ma campagne comme su ma nekkoon ci jamonoy campagne li ma ci mën yëpp ma def ko ci parce que loolu laa gëm may mu na man nanguwuma ñuy néewal doole doomu aadama ak lu nit mun a wax ci man dangay wax rek mu wadd romb parce que xam nga lu tax su ma bëgg Sénégal su ma passion ci réew mi ah loolu jaral na ma man lu ñu wax ci man ma ma ma encaissé ko jaral na ma ku ma tooj ma baal la parce que jàpp naa ne dama bëgg réew mi yor ko ci sago. mais ci point boobu. jàpp nga ne dama bëgg jël askan bi Khalifa moo la poussé vers la sortie jël réew mi ci sago. dama bëgg jël réew mi ci sago. defar réew mi ci sago. nit ñi tekki ci sago. ma pare ci sago. delloo ko nit ñi ci sago. kon mënumaa nekk nit kuy jàpp mer. wala di fayantu déedéet. donc meretuloo Khalifa Sall man musuma mere kenn. jàppoo ne moom moo la génnee moom moo la précipité. vers la sortie xam nga loolu wax naa ci parce que tout simplement jàpp naa ne xëy na moment booba ñoom bëgguñu woon ma nekk ci biir Yewwi aussi simple. buñ la woowee di nga dem foofu. du question woo parce que nee naa la man xeexuma Macky Sall jëmm ji doxalin bi laay xeex. donc su ma gisee ñuy def même doxalin bi que Macky Sall ñàkk a nawloo nit ñi nga àndal mais bu boobaa ma xeex ko et c'est ce que j'ai fait. mën nga duggaat yeewi teewul tey ñu ngi retrouver wu ci biir F24. mais est-ce que mën nga duggaat yeewi tey ñu ngi ci biir f fi mu toll nii dañu jëm élection présidentielle ku nekk da nga war a samp sa ndënd. boo jàppee ne yow war nga yore réew mi te man jàpp naa ne ñi taxaw tey pour jub jublu ci Sénégal pour defar Sénégal kenn ëpp ma ci yéene ci réew mi kenn gënuma cee maîtriser Sénégal kenn ci ñoom ñi nga xam ne bëgg na Sénégal wala bëgg nañu jiite Sénégal li ma biir mooy li ma xam ci réew mi gëw ma ne ci ñoom am na ku ko xam ci réew mi. mais Bougane objectif